yéene jéeg ñaan yi def excellent xëy na sax ñaan yi moo a moo tax mu demee nii waaye yàlla dogal na dara jotuñ ci waaw te it ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant bopp yëpp nag di tax feex ndax bis bi daa delluwaat foofu moom fitna fitna bi métti ma ko solo waaye di ko la nekk mu ci nekk ndax léegi day bànneex ba mooy suñu borom dañu ci musibe te kenn gaañu kenn xuri ko su lay wax di yàlla bànneex ndax gëm naa ne sax moom ci boppam bakk na moo nu jaare waaye suñu borom def na tawfeex ba moom it loolu am nañu ba dimbale ko ba loolu jot taam kon loolu dañ ci sant yàlla ndax fekkoon ne jot nañ koo lor bakkan la ci at waaye day nekk benn mbir te mu gënal ndax xay na ci njaboot gi la bokk gënal kenn waaye ci njaboot gi la bokk te it ñoo ko tasaaree nii. te it tasaare bi xam naa li ci jublu mooy nit ku nekk foo nekk rawatina bi jiitu mbooloo ngay faru ci ko te am naa yaakaar ne dana nekk jàngat ci mboolem foo xam ne yaa ngi jiite mbooloo foo mën nekk rek faru nga xam ne mën na laa dal yéerum bu kenn nag waaye bu nekk rek di foo xam ne ñoom nag loolu lañ ci tasaare bi waaw gën a yéem askan wi mooy mbir am na wante da nga taxaw ñu julli moom waroo ko dox rek ci ci saw ginnaaw loolu am na buy yëngu na bu yëngoo ba noppi war naa mën awaat eggal julli yi ndax tey dama koo seet ne bu jàmm génnoon rek normalement mën na maa moytu ba ba am jàll wala ba ba ma lottal ko mën a egg lott julli doom ko tax dox te ànd sama sago xanaa ma dem ba ñàkk ànd ak sago ma tax ma dox rek ma nga ànd ak sago ma ko dox waaw loolu waral gis nañ ci sa xutba tamit ñëwoo ci benn yoon ci incident bi am ci mbir waaw waaw loolu loolu loolu ah day mel ne koo ci nekkee day mel ne ne day nekk mbir bu la naqari ndax wax dëgg war ñoo naqari ndax de moom koo xam ne bi def nay fexeem dañ jëndu paakaam paaka bu ñëw làqatu ci barab ba nga xam ne maa ngi toll ci la te jekku lool lool te jëm la kooku nag daaw sant yàlla waaye waroo jàmbat sant yàlla rek laa jëlee waaye ak njàmm am ci woon gis paaka bi lemu laalul benn yoon waaw loolu moom gis nañ ci waa bi loolu moom waaw loolu moom bu kenn jàpp ne kéntaan la wala rek la rek la instrument a dafa naan. lii xeetu violence la lan nga leen jëm ci jamono ji ñoom ñi nga xam ne violence dafay gën a dugg. waaw loolu li a dénkaat yi ñu daal. Mhm. moo ñu gën a lekk am njub. Mhm. moom képp ku mhm. mu mën a doon yëpp yëpp rek ku ci nekk ci njub mën ngaa mucc yooyu xew ndax da ngaa jàng karaté parce que fànn moom am na. ah li ma taxoon mbokk yi di ma wax naa ma seen yow naa ko jàng tey naa ko <laughs>